ay nit ñu weex di ay yëfër nit ku bon ku ñu wax Macron nga xam ne xale bu ndaw la amul pas-pas xamul diine lislaam fu mu toll xamul ne moom réew mi mu jiite muy France euh, li ëpp ci réew ma ci ay gone ay jullit lañ rasulullah salaam lañ gëm bu fekkoon ne kuy àttewoo ci diine ci àdduna képp la wutoon am sañ-sañ boobu sañ-sañ boobu rawat na muy laal pas-pasu milliards yi milliards doomu aadama kon kooku nit ku ban la koo xam ne adduna bépp dañ ko war a danoo sa dal ci kawam nag maa ngi interpellé euh, jullit yi àdduna bi rawat na waa Sénégal nga xam ne réewum jullit la 95 pour cent bu nekk yëpp ay jullit lañ lii nañ ko ñaawlu ba adduna bépp xam ko ndax rasulullah salaam suñu borom moo ko bind tànn ko bëgg ko mu gënal ko lépp mu jiital ko mu nekk yonte boo xam ne mbégte la rasulan mu bassiran mu bassiran la la la waxoon ne yonte ba waxoon yonte saa sallam waxoon ne suñ borom wax ne ko wama arsalnaaka illaa mubashiran wa nasira wala wala wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yónni ma la lu dul nga nekk yërmaane ngir mi def yëpp kon ko kuruñoo seetaan kenn di wax wala muy ŋañ wala muy wax lu ñaaw jëme ko ci moom ñu ngi koy ñaawlu fa ba fa ñaawlu gën a mën a yem ab jullit nag mënut na yonte saa sallam waxoon rek ab jullit saa boo xamee ne gis na loo xam ne lu lu bon la na ko dindi ci loxoom su ko mënut ko tudd ci aw làmmiñam su ko mënut na ko mettlu ci ab xolam waaye ñun ñaar yi nga xam ne mën nañ ko moom muy wax ko ci suñu làmmiñ ak mettlu ko ci suñu xol ñu ngi koy mettlu bu baax a baax ndax rasulullah salaam lu ko waaye wax kat sëñ tubaa ko war a fay donc dëkkam bii lu tubaa moom biir na ne rasulullah salaam sëñ tubaa jaral na yonent bi salaam jaral na ko lu nekk ci àdduna keroog ba muy jaayante dafa wax ne rasulullah salaam mi may jaayanteel de bëgg naa ko mbëggeel goo xam ne su ma wéroon ne asamaan wér gi ma wér ne si moo ma daa moo ko daa tiim moo may tiim danaa ko liggéeyal ba am li ma bëgg ci moom te liggéeyal na ko ba mu nekk ab ab xaadimam ndax chakartuhu isxasani bi xidmatil maahishani saa xidmatin fil alani loxoo fakka wala mi loolu la wax kon ñu ngi koy mett lu baax a baax message bi nga xam ne nag maa ngi koy jot ndaw yi rawatina fii jamono toll nañ xam ne àdduna suñ borom bind ko ngir mu jàkk daana tane nag waaye bëgg àdduna wala bëgg teraangay àdduna wuuta jaral kenn muy xaru wala mu jaay bakkanam phénomène bi xew léegi nga xam ne bis bu set nga dégg ñoon ay dizaine de personnes wala ay centaine de personnes ñi ngi dee di mbëkk ci gaal yi nañ xam ne loolu xaru la te ab jullit saa bu xaroo rey bakkanam te tey ko bu ëllëgee ba dee ak suñu borom dana ko layante wa man xatala muminan mutaammidan fa jazaahu jahannam la ñu wax wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazaahu jahannam képp ku rey bakkan bakkan nag moo xam sa bos la moo xam bosu jàmbur la waaye saa boo ko reyee te yàlla reyu ko yaa ko sabab nee na bu ëllëgee sa fay mooy sawara nañ gëm yàlla te gëm yonent bi te nangoo liggéey te lu waaye am mu doy la waaye bu wurte jaral kenn muy kii loolu nag li ko mën a indiwaat mooy tënkuwaat ci ak jub waaye tënkuwaat ci diine lislaam ndax lislaam prévoir na lépp képp koo xam ne fës ngaa yéene jiitu ateb suñu borom da nga xam ne da ngay sonn rek ndax alxuraan da wax ne wa e, isa isa ja ajulaha laa yastaaxiruun shaata wala yastaqdimuun fa isaa jaa ajaluhum falaa yastaaxiruun sa'atan wala nee na ab dig saa boo xamee ne egsi na nee na du jiitu benn saa waaye du du du du mooy benn saa du retard maanaam du avancé du retard kon nañ gëm yàlla bu baax a baax te góor góor lu baax a baax